asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokki Cheikh Xasida maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal euh, tey nag euh, mu ñëw ak ci benn vidéo bu bees tey nag euh, Touba lañu jëm dana yéem ci Touba ndaxte kat am na lu fa xew le nekk Touba nekk maire APR Abdou Lahad Kat ah, moo xëy tey si talaata bi ah, ñu tiire ay balu fetal ci biir këram. mbir mi nag xaw a doy lool eh, ñu bëri tiit nañu eh, ragal na parce que ay bali fetalkat boo xëyee suba teel di ko dégg ci réew bu mel ni dëkk bu mel ni Touba eh, fit yëpp war noo mën a def waaw bi mu amee am na nag ñun si jot a tuumal ñi naan benn surtout Serigne Abdou Lahad la moom moom daal moo moo fa ñëw donc bi muy ñëw tamit mi ngi. yoroon benn 4 x bu weex bi mu ñëwee daal jël na ay bali fetal tiire na ko ci fenêtre euh, kër gi euh, bi loolu amee nag euh, coow li bëri commissaire Janatu Maxwa dugg ci mbir mi ci début bi nag moom jot na noo jàpp jot na noo jàpp ay nit ñu bëri di leen di enquête di leen di enquête waaye nag biñ demee ba ca fin ba ci leen doog comprendre ni que mbir mi kat du kenn kudul euh, sëriñ Abdou Samad bu Cheikhouna gars yi ah, sëriñ Abdou Samad bu Cheikhouna lan ko tuumal ah, ñu ne nag lan moo waral mbir moom ñu ne kat euh, ñoom ñaar kat daa am fu jaar parce que boo xoolee sëriñ Abdou Lahad Ka mi nekk maire bu euh, Touba ah, moom bëggoon na marché. li ñuy jox euh, mooy marché université euh, bii ñuy tabax ah jamono bu ñu koy euh, bëgg nag jamono yi seen si Sidi la woon bi mu fi nekkee ah bu ñu ko bëggee nag def si ay jéego ba sonn waaye nag li waroon sëriñ bi dañ ko ko bëggoon a xaj ah ma xawee jaaxle nag ci la demee nag daal di gis ku mel ni sëriñ Abdou Samad Cheikhouna waxtaan ak moom bi mu waxtaanee ak moom nag. Euh, bëgg na ko kooku jàppale ko ngir moom mu gagné marché boobu bi ngeen dégg mooy Touba matériaux nga xam ni moom moo ko jiite moom maire bi tamit moom moo gagné marché bi. ah bi yàlla dogalee nag sëñ Abdou Samad Cheikhouna def ay pexeem ak ay ay lijjanteem fexe ba sëñ Abdou Lahad Ka di maire bi daal di gagné marché bi moom nag da koo digoon ne ko nag ah su ma gañee marché bi. ah dinaa la jox lu am solo eh, bu soobee yàlla ah suñu Abdou Abdou Samad eh, Cheikhouna tamit gëm ko lool. mbir mi nag ah, bi mu amee nag dafa tombé que nag Serigne Abdou eh, Serigne Sidi ah, Ka mii di maire bi léegi nag Serigne Abdou Samad. di toog di xaar di yaakaar ni mu jox ko li mu ko waxoon li ah, sa daal di koy fàtte complètement dem na sax ba su koy woo ah, maire bi du ko nangoo jël maanaam daal daa wor lu mu ko waroon na jox joxu ko donc nag moom it xolam fees amul lenn mu def du demit taal otoom daal di dem ba kër euh, maire bi dafay sox ay balu fetal waaw instant boobu nag léegi nii nag ñuy wax ak yéen euh, waa dikk nag euh, jàpp na leen ñoom ñaar ñëpp déglu na leen tamit déglu na maire bi euh, déglu na Serigne Abdou Samad waaye daal ci mujj ba ci mujjal tey ba daal déglu na leen daal leen yóbbu daal di transféré dossier bi ci procureur bu Diourbel Abdou Samad Ka nag ah, jamono yi ñu ngi wax. ak yéen mi ngi këram ñibbi na waaye nag dossier bi jox na ko euh, procureur xam naa ni dinañ ci am lu leer ci fan yi di ñëw